asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaar tey nag jàmm ci suñu chaîne bi di Dramane Mobile ñu fi amee astuce yu am solo yi tey nag dikkaat nañ ci beneen vidéo boo xam ni euh, bu am solo la bul ko tardé mukk vidéo bi nañ ko topp di bi à la fin bu ko defee euh, option biñ ci biñ ci indi dina la jariñ bu baax a baax a baax maanaam su fekkee da nga bañ sa euh, sa téléphone nit jël ko wala xale di dugg ci caméra yeeg ci photo yi noonu maanaam bu appareil bi comme fi ma nekk nii appareil photo bi danga bañ mu def ci benn vidéo wala mu def ci benn photo boo xam ne si daal euh, tàggool dafa jékki-jékki rek jël ko def ko loolu soo ko bëggee bloqué dangay ngay ñëw paramètre ci base de recherche bi euh, photo de développeur euh, de paramètre boo ko defee nga cliqué li mu lay génne nii bii nii lay def par défaut day activer ko boo ko defee yow da ngay wër ba gis capteur désactivé nga bës capteur désactivé jooju nga activé ko parce que dama ko activé ba mu njëkk waaye da nga koy da nga koy kii capteur désactivé bu ko defee capteur désactivé euh, déjà waaw baax na c'est déjà bon léegi nga génn boo génnee wala nga bàyyi ko ci biir soo soo cliquer bi ba mu coché wu da ngay wàcce barre notification bi xam nga mi ngi nii amoo ko fi waaye mi ngi nii donc boo ko coché day bula léegi euh, su bulaa nag kenn dootu man a dugg sa caméra ba mu dox xaar ñu vérifier waaw comme nii gis nga saa ci duggee lii lay génneel Eh, lay génneel waaye nag xam nga ni eh, comme benn option la boo xam ne si day feeñ ci kaw icône yi lay ci ci kaw icône yi nekk barre barre notification bi comme nii su benn waaye duggee tam dina xam ni bu xoolee bu baax xoolaale affice ba ca kaw dina xam ni signe ba ca kaw moo nekk nii ci icône nii kon dina ko mën a désactiver waaye nag li tax nga mucc ci désactivation boobu noonu nga xam ne si di nga ko sécuriser. Eh, am na neneen noo koy def maanaam boo defee nii. am na fu ñu bind ci kaw modification su fekkee yenn téléphone yi la modifié la ñu bind am na yoo xam ni dañuy fiy def lu mel ni benn crayon comme bii nii benn crayon lañ fi def léegi boo laalee ci crayon bi wala ci modifié ji dafa lay indil benn tableau comme nii bu la ko indilee nga teg sa loxo ci icône bi teg sa loxo bu dëgër daal di xëcc xëcc xëcc xëcc ngay def appui long quoi xëcc boo bàyyee rek mu nekk ci première position bi ci lay taxaw bu ci xoolal boo xëccaatee dootu dootu fa nekk dootul nekk ci première icône yi nga xam ni ci deuxième position bi ci ci ci deuxième kii bi lay nekk deuxième tableau bi te deuxième tableau bi euh, du feeñ boo ko teg yi feeñ boo xëccee kii bi boo xëccee notification bi il faut nga dugg modification yi muy soor a feeñ te saa bu ko waaj xëccee ba mu feeñ gis nga nii day gris nekk lu bula xam nga saa boo ko activé day dafa war a bula normalement gis nga icône yi activé wu yëpp dafa bula waaye bii ni day gris donc muy lu am solo quoi ay wasalaamaaleykum